mbedd bu Médina wéetaay lañ fi nemmeeku yenn citoyen kese ngay gis ñuy dox seeni soxla ñii di uudekat yi sax seeni place yi dafa daldi di wéet doo fa fekk sax ab client yi lay client nekk lu leen jafe jamono yi te lenn waxalu ko lu dul produit chinois yeeg turc yi fees dell ci marché sénégalais yi yi lay jaaykat nag di ñaxtu bi les concurrence bu métti. da nga ni xaw na mais xawul daf ko def entièrement daf ñoo impacté trop trop trop concurrence bi. ñun nuñ doon liggéeyee di si gis suñu bopp gisatuñ ko suñu bopp. chinois yi bon nit ñuy indee bagage fii dafa xaw a métti dem na ak Turquie dem na bagage bi li muy dugg tey ci Sénégal euh, dafa xaw a diminuer suñu. liggéey ci lu bëree bari ko Sénégalais yu bëri dañoo daal bàyyi consommer local bi te li leen gënal mooy ay produits yi nga xamante ne dañ leen jëlee foofee ca bitim réew mu nekk ab situation bi nga xamante ne commerçant yi ñu ngi koy ñaawlu te nag ñu ñuy justifier lu ko waral. waaw complexe mi ngi ci biir ñenn ñi parce que am na sénégalais wala sénégalaises yoo xam ne li leen def plaisir mooy man du ma consommer local. beneen bi mooy chinois yi seen daal yi dafa yomb trop. parce que ñoom matière yi nga xam ne dañ koy indi di ñu ko jaay fii ñu koy jënd confectionné ci daal yi même matière bi ñu ñuy jaay ñun ñu defar ci daal yi ñoom ñu defar ci daal def ci quantité boo xam ne suñ ko doon jënd ci matière bi ñun mënuñu ko jënd yile artisan lu ñu bëgg rek mooy ñu régulariser di di marché bi ñëpp ñi ngi ñëw di daw nu mu leen neexee la ñuy duggee ci réew mi di fi indi seeni i produit ñun duñ mën a écouler suñu produit li ñu li ñu confectionné woon nii ci fête bi nii ba léegi mi ngi ak ñun ci suñu ay place ñu tee mënuñ ko jaay léegi état bi ñu mën a jàppale mooy ñoom ñi nga xam ne aussi dañuy indi marchandise bi fii ci biir réew mi xam nga mu jéem a def benn affaire boo xamante ni même su fekkee ne prix yi mënuñu ko augmenter tamit ñu teg leen yenn sanction yoo xamante ni aussi ñun dinañ mën a jaay suñu marchandise ci biir dëkk bi buñ sukkandikoo si les artisans secteuru artisanat dañ ko bàyyi ginnaaw si biir senegal mu nekk li nga xamante ne dañ koy ñaawlu waaye nag ñoo ngay weq seen yaakaar si nguur gu bees gi nga xamante ne falu na ngi rekk seeni jafe-jafe